leen ak jàmm journaliste bii di Serigne Saliou Gueye daal dina tekki ndombo tànkam ci kër yéenekaay bii di Sen TV ñu gën koo xam ci d moom ak naataangoom bi nga xamante ne nii moo di Abdoulaye Mbow waaye pour fàttali ki nga xamante ni moom moo di Serigne Saliou Gueye euh, jamono yee passé euh, sénégalais yu bëri rawatina patriotes yi dañu sàkk ci woon ci moom moo daal di démissionné ci euh, këru yéenekaay bi nga xam ne moo di Sen TV ndax ñu ci bari dañu gis ne Ah, ah, débat yi doon am biir ndumbelaan waxtaan yi ah, ñu ci bari dañ doon gis ne Serigne Saliou Gueye comme moom dafay defendre ay principe di defendre li nga xamante ne nii di defendre ay valeur ci noonee ki la naataangoom boobu nga xam ne moo di Mansour Diop daal di wax ne daal di def benn vidéo ne mu ngi sàkku ci Serigne Saliou Gueye pour mu daal di génn ci yéenekaay bi di D-Media ci loolu nag Euh, Serigne Saliou Gueye xam naa euh, décision bi mu ngi daal di jóg mu ngi doog a jot ci moom euh, pour mu daal di tekki ndomb tànkam waaye daal gis nañ ne tey ci commentaire yi li ñu gis ci réseaux sociaux yi depuis mu wax ne démissionné na ci këru yéenekaay bi bi di di day média bi nga xamante ne nii kii di Bougane moom mooy patron ba ñu ci baree bari bari ci bi Sénégalais yi dañ koy doon félicité di rafetlu maanaam euh, démissionné bi mu démissionné ci biir des média euh, ku ci mel ne Abdoulaye Mbow ñëpp xam ko moom it mu nekk nit koo xamante ne ku xarañ wax dëgg yàlla mu nekk journaliste boo xamante ne nii boo déggee ni muy defee analyse euh, da ngay gis ne analise bi da koy da koy teg ci xam-xam sans par parloo moom it ñu bëri xawoon na seetlu ne dañ ko xawoon na mettre au frigo ci waree bari ba gisatuñu ko. ci plateau yi xanaa sax ci yeneen plateau yi nga xam ne lañ ko ci invité mais ci biir de médias bi nga xamante ne fa bokk ñu ci bëri gisatuñ ko ci ñu ñu bëri jàpp ne xëy na moom it ki nga xam ne moo di Abdoulaye Mbow euh, euh, ni muy def Euh, mooy euh, journalisme boo xamante ne nii euh, ay analyse am du koy teg ci da koy teg ci li nga xamante ne nii mooy dëgg du xool kii la neex wala neexul kii loolu it bokk na ci lu bët li taxoon yi jàpp ne moom place am du biir des médias mu mel ne démission yi nga xam ne bi mu amee amu ci kenn ci biir sénégalais yi ci sénégalais yi koo xamante ne na wax dëgg yàlla wax na ñii waroon nañu toog ci biir kër gi mais ñu bëri dañu jàpp ne waroon nañu fa quitter Mansour Diop ñëw na ci ay yooni yoon nee na dem na sax ba ci euh, euh, euh, bureau Serigne Saliou géey wax ko ne ko grand man maa ngi sàkku ci yow wax dëgg yàlla foo xamante ne cëraluñ la fa wax dëgg yàlla bu fa toogati moom it mu wax mu respecté décision wu rakkam ji nga xam ne moom moo di Mansour Diop waaye teewut xam naa ne décision bi mu ngi doog a jot ci moom waaye li ci gën a li ci gën a yéeme rek mooy liñ gis ci réseaux sociaux yi sénégalais yu bari gis nañ ne démission Euh, ki nga xam ne moo di Serigne Saliou Gueye ak euh, ki nga xam ne moom moo di euh, ki nga xamante ne nii Abdoulaye Mbow ñu bëri dañ ko rafetlu au lieu de ñu ŋàññi ko mais Sénégal yi bëri dafa mel ne yàkkamti woon nañ décision bi ñu ci bari di wax ne ñii seen place du fii